Oh, rus naa rus naa sax rus naa rus naa man dama gaaw a am gàcce na ñi am gàcce patriote yi am gàcce tey ci message u Pape bi ajja bal perdu rus naa rus naa trop ak Serigne Touba parce que waruñu woon a toog nag ba Pape Alé di ñu fàttalil nañu ñu yu baree bari ñu ngi attardé wu ci ay futilité waruñu woon a toog ba Pape Alé di ñu fàttalil nañu ñu ñu ngi leen di divertir am na yoo xam ne nekkatul suñu cër ñun ci li ñu war a focus war ci concentré wu matin midi soir mooy Seydina Ousmane Sonko mi nekk ci prison bi nu ñuy def ba mu génn ci la ñu war a focus matin midi soir mooy naka la ñuy def ba suñu leader bokk. naka la ñuy def ba changer système bi mais waruñoo toog di attardé wu ci état boo xam ne maanaam mu ngi joxe arme naan rey leen xale yi tiire leen ci kaw xale yi waruñoo toog di attardé wu ci euh, état boo xam ne mu ngi jaay doole population waruñoo toog di attardé wu naan tànn nañ kii wala tànn nañ kële il a parfaitement raison. su préfet bi nga xam ne moo wóolu waa ji menacé ko xamal ne bi ñu wóolu ñun itam ñun waa internet bi ndax dinañ wax li nga def te dinañu ko partager ba àdduna bi jot ci parce que Sénégal ñoo ko bokk te dañoo bëgg baax. léegi nag Koungheul lañu wax xaw ma côté Koungheul yéen jàpp naa ne yow amoo gàcce ndax yow boo amoon gàcce Mbathio Ndiaye sax boo ko leboon xaalis mu lebal la nga defar yoon boobu ñuy wax ba ku bëgg am doom mën a yegg hôpital bu jamono neexee nga delloo Mbathio defe naa côté Koungheul la te côté Koungheul la Mbathio dëkk wala Koungheul bi ci njëkk nee nañu waa ji dafa filme yoon bi man vidéo bi seetaan naa ko jabaram bi am doom mu takk saret di ko ci yóbbu dem ba ci xur foofu mënul jàll mu am ndox mu taxaw filmer mu yegg hôpital vers deux heures la wax xaw ma trois heures ñu téye ko fa six heures du matin amul doom xaw ma lan ak lan hôpital amul lal amul courant amul làmp ba yaayam lampe tos la yoroon di ko ñit gàcce googu yëpp ñu filmer ko wane ko nga woolu waa ji di ko menacer ñun dinañ partager vidéo bi dinañ ko dénoncer jël réew mi jox ko Ousmane.